الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فجدير بمن الموت مسرعه والتراب متجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة والنار مورده أن لا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تعريج إلا عليه مقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ne lu jaadu la lu yay la ci képp koo xam ne wóor na ko wér na ci moom ne day dee mu koy xalaat képp koo xam ne ci ñun wóor na ko ne lu mu yàgg-yàgg day fanaan ci biir suuf war na ko xalaatal war na xalaat bis buñ ne guddi na gaaw na wala ñu ne naaj na kenn du am jàmm lu ñu suuy la ci àll ba kenn du añ kenn du reer lu dul ñu wàcce la salal génne la sa kër dugal la ci morgue préparé la yóbbu la ku nekk ci ñun rek war ngay xalaat mujjukaay boobu waaye kenn ku nekk ci ñun war ngay xalaat ne bis di nga ñëw nga fanaan ci biir bàmmeel nga bëgg a jóg suuf féete la kaw féete la suuf féete la ndeyjoor féete la càmmoñ nga bëgg a jóg suuf si bloqué la te la da nga daan dox sama kaw tey man maay tëdd sa kaw ku nekk ci ñun war na xalaat teraay boobu muy tëdd ci biir suuf waaye kenn ku nekk ci ñun mbokk yi war na xalaat bis bu ko ay sax di wéttali ay doomu aadama dootuñu la wéttali dootul nekk jabar dootul nekk doom dootul nekk àndandoo dootul nekk ay soppe waa ay sax ñooy nekk sa wéttal ku nekk ci ñun war na préparer loolu war na ko xalaat kenn ku nekk ci ñun war na bàyyi xel keroog ba ñaari gaa yooyu ñuy wax munkar ak nakiir kii di toog ndeyjoor kii di toog càmmoñ ñu nekk ay toogaaleem ci biir bàmmeel lan la war a préparer bàmmeel boobu ba ñaar ñooñu buñ ñëwee fekk ko fa mu toog ñu koy laaj lan la war a tont Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu wa ardaa yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa toog di wax ak sahaaba yi mbirum bàmmeel omar daa di laaj yonent bi benn laaj ne ko bu nu dekkee ci biir bàmmeel ndax yàlla daf ñuy delloo sunu ruu comme nii nu mel ci àdduna yonent bi ne ko waaw mu ne kon man duma tiit bu munir ak munkar di ñëw ci man omar génn àdduna lu yàgg kenn ci saxaaba yi tëdd guddi gént us umar mu nekk ci biir bàmmeel mu ne ba ci moom ne ko umar keroog bi nga faatoo ñu dugal la biir bàmmeel munkar ak nakir ba nga leen séenee di ñëw bi ñu la laajee loo tont mu ne ba ma déggee ñuy xotti suuf si di ñëw mu wóor ma ne ñoom ñaar la ba ñu yegsee bala ñu may wax man rabbuka dama leen ne yéen ñaar man rabbukuma kan ma waroon laaj ñoom ñaar fii nag tey Omar moo leen laaj ne leen yéen ñaar ñii kan mooy seen borom loolu la doomu aadama war a préparé kooku dafa préparé ba mën a jël boppam mën a laaj bu préparé wul woon du baax kon koo xam ne munir ak munkar ñoo nekk sa toogaale ñooy toog sa wet boo tëddee ki nekk ci bopp bi ki ci tànk yi soo toogee ki nekk ndeyjoor ki nekk càmmoñ kon war nga préparer loolu ixwatal iman ku mu nekk ci ñun war na préparer bàmmeel ndax bàmmeel mooy nekk suñu kër gu mujj moo tax yont yàlla muhammad mu ne tazakkaru tazakkarul mawt wa hazimi lazat mu ne wa murru ala alqubur wa'lamu annaha satakunu lakum masakin kama sakanaha man kana qablakum sawfa nunqalu an fasihi dar wa nadkhulu alqubur wa hiya awwalu manazil alakhirah faman naja minhu fama ba'dahu yanjah wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad yonent bi nee na fàttaliku leen dee na ngeen di génn ci seen biir kër yi ngeen di romb ci bàmmeel yi di xool mu wóor leen wóor yàlla ne ni ngeen dëkke kër yi tey di ngeen dëkke noonu bàmmeel yi ëllëg ku mu mën a doon ci ñun bis mu ngi ñëw dinañ la génne sa kër yóbbu la ci bàmmeel yee yonent bi nee na mu nekk première kër ci këru allaaxira yi Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu wa ardaa su seenoon bàmmeel day jooy ba sikkim bi tooy benn bis sahabatul kiram ñu ne ko yarhamuka allahu ya Usmaan tazkurul janna wala tabki wa tazkurun naar wala tabki yow Usmaan ñu ngi ñaan yàlla yàlla na la yàlla yërëm yow da ngay xalaat aljanna doo jooy xalaat safara doo jooy waaye Ousmane boo séenee bàmmeel kenn dootul dégg mu ne waaw damaa dégg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di wax ne bàmmeel mooy première kër ci këru allaaxira yi su neexee ginnaawam day neex su naqaree ginnaawam day naqari kon kenn ku nekk si ñun war nga xalaat tëraayu bàmmeel bàmmeel war a nekk sa kër kon war nga ko préparer war nga ko xalaatal balaa nga fay dugg balaa nga fay teew ixwaan yi kenn ku nekk ci ñun war nga xalaat war nga préparer jour bi nga xam ne mooy rendez-vous bu yàlla jox nit ñi te kenn du tardé muy bisab yowmal qiyam dañu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw yonent ndax yowmal qiyam yéen yonent yi di ngeen xalaat seen njaboot yonent bi na Aïcha ñetti place kenn du fa xalaat kenn bis bu ñuy dekk ëllëg war a nekk yowmal qiyaam ñu war a dekk tey kenn du xalaat kenn bu ñuy jéggi siraat kenn du xalaat kenn bu ñuy jox liggéey yi kayit yi kenn ku nekk jëlagoo xamoo ndeyjoor ngay joxe xamoo càmmoñ ngay joxe kenn du xalaat kenn mbokk yi li doomu ndey bi doon fàttali léegi ak li mel noonu kuy xalaat bàmmeel kuy xalaat qiyaama di ko préparer yooyu doo ci dugg ndax bànneex bu lay jural mbugalu éternellement safara dak xaalidina fiha abad benn bànneexu 30 secondes benn bànneexu 5 minutes du la yàqal du la tere nga jaamu borom bi tabaraka wa taala ixwaan yi képp war nañu xalaat kenn ku nekk ci ñun dëkkuwaay benn dëkkuwaay rek dëkkuwaay bi mooy lan mooy aljanna kenn ku nekk ci ñun war na xalaat benn dëkkuwaay dëkkuwaay bi mooy lan mooy safara bis bu yàlla di jox malaaka mu taxaw xoolil waa safara ba mu wóor ko ne ñi ñooy waa safara mu ne seen borom nee na ngeen sax dootu leen génn ba yowmal qiyaama ndeysaan mu jàkkaarloog waa aljanna ne leen yaa ahlal janna xuluud bila mawt waa aljanna sibile yuuxu waa safara daal di yuuxu ñii dañuy yuuxu dootuñu dee ñii dañuy yuuxu ci safara la ñuy sax dootuñu génneti kenn ku nekk ci ñun war ngay toog nga xalaat ba ci yàgg nga xalaat yow ci ñaari kër yooyu ci ban kër nga ci bokk képp koo xam ne ci ñun nag lii moo nekk sa mbir wóor na la lii moo nekk sa kanam moo nekk sa programme bu la yàlla programmé kon laaj bi mooy lan est ce que préparation yell na wala yellul est ce que xalaat yell na wala yellul yanbaghi an la yakuna lana fikr illa fi lmawt waruñu xalaat lenn malik ibnu dinar doona wax ne su ma amoon ay nit yoo xam ne dinañ nangu sax ma fay leen dinaa leen tasaare ci mbedd yi bu fajar jotee ñu yuuxu naan ayuha nnaas annaar fàttaliku leen safara annaar ku nekk dina ñëw ba sa buntu fenêtre fëgg la ne la annaar safara mu ngi lay xaar ku safara di xaar mbokk yi war nga yor beneen programme bu dul bu waa programme bu waa réew mi yor war nga yor yeneen xalaat yu di waa réew mi yor yor nga war nga yor yeneen bëgg-bëgg war nga yor yeneen projet war nga yor yeneen mébét yu dul yu waa réew mi yor ahbaabi fillah yanbaghi lana an la nahtamma illa bi zikril mawt yàlla na ci ñun ñu bañ a yittewoo lenn lu dul di xalaat dee ak lënd mu bàmmeel wa xaqiqun bi an yaudda nafsuhu min al mawta yàlla na ci ñun kenn ku nekk ngay xalaat bu xëyee suba li yonante boxoon abdullah ibnu omar ya abdallah ida asbaht fala tantazir alsaba wa ida amsayt fala tantazir almasa wa ud nafsaka min ashaabi alqubur soo xëyee suba bul jàpp ngoon dina la fekk su la la fi ngoon fekkee jàppal ne doo fanaan sooy dox na nga konte sa bopp ci waa bàmmeel doomu aadama bu defee lii teg dee ci kanamam su xëyee jàpp ne du yendu bu yendoo jàpp ne du fanaan su génnee su yendoo mu jàpp ne moom balaa muy duggaat këram faatu kon kenn du la fekk ci yoo xam ne kenn xamu ko kenn du la ci fekk ci ay caaxaan kenn du la fekk ci fo kon waxuma la sax nga koy programmer ixwaani mashaynaaha xutan kutibat alayna ومن كتبت عليه حزا مساها أرزاقنا لنا متفرقة فمن لم تأتيه منا أتاها ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها mbir mi yàllaa ko programme dangay dox jëm ci wala mu dox jëm ci yow dangay dox jëm ci dee rek wala dee dox jëm ci yow qul inna almawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum qul yatawafaakum malakul mawt allazi wukkila bikum borom bi nee na dee gi ngeen di daw mi ngi nii topp seen ginnaaw yàgg-yàgg walaw ista alfa aamin wa alfayni baadahu fala budda yowman tasduru lqabr soo dundoon junni at ñu wisaat la junni at yàgg-yàgg rek danañ la dugal biir bàmmeel da ngay dox jëm ci rek wala dee dox jëm ci yow da ngay attaqué mbaa mu attaqué la kon nag mbokk yi yàgg-yàgg rek day ñëw mu ne wa man kutiba alayhi hazan mashaha képp koo xam ne yàlla dafa farataal ci yow dara bind ko ci yow mënoo koo rëcc katabal mawtu ala al xalq fa kam falla min jayshin wa afna min duwal ayna man shaadu wa saadu wa banaw ayna firawna wa haman ayna firawna wa haman ayna man saadu wa saadu wa banaw halaka al kullu halaka al kullu kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram borom bi moo farataal dee gis ngeen dee benn mbir la moo xam ne yàlla moom la moom la sadd ci kaw bandi yi amul kenn ci ñu lu dul day dee lu ay kàccoore kàccoore loo am doole am doole loo oomal oomal loo baax baax baax dee mi ngi nii ci sa kanam munoo rëcc yàgg-yàgg rek pouvoir boobu mooy wane ne yàlla mooy yàlla tabaraka wa taala amul kenn ku mun a daw lu nekk gis ngeen nit ñi dugg ci waaye dee munu kenn munu ko tëg waaw léeg-léeg sax nga dégg ku baax ñu ne dafa nelaw dafa wàcc liggéey nangam ak nangam daa dee du gàcce victoire la ci ku sàngul ku sànkul dundam yàlla moo joxoñ yonent yàlla muhammad ne ko innaka mayitun ndax am na ku gën a baax muhammad yàlla ne ko muhammad mu ne ko la bayk mu ne ko yow da ngay dee innaka mayit da ngay dee kon victoire la ci ku sànkul dundam koo xam ne jàppul dundam bi bëre la koo xam ne jàppul dundam caaxaan la fola fecc cëppi-cëppi naan sàngara njaaloo koo xam ne jàppul loolu dundam koo xam dafa jàpp dundam jaamu yàlla la kooku bu dee ñëwee ci moom day nekk victoire kooku mooy zibile yowmal qiyam bu ñu dekkee kooku mooy téye ay liggéeyam naan haa umu qura'u kitaabiya inni zanantu anni mulaqin hisaabiya ku wóor inni zanantu anni mulaqin hisaabiya loolu mu wóor ko moo taxoon mu nekk ci adduna di jaamu yàlla tabaraka wa taala di sonn di xiif ak a mar ngir kontaan loo boromam tabaraka wa taala aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله يجب على المسلم أن يقف مع نفسه وقفة يحاسبها في الدنيا على كل فعلة فعلها وعلى كل كلمة قالها فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل سغلك وصبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله yawma idin turadun laa taxfa minkum xaafiya mbokk yi dina yell cib jullit mu taxaw ay taxawaay ay taxaw seetlu yu muy def ci dundam waaw man bi ma amee ñaar fukki at ak léegi sama ñaar fukki at yi ci lan laa ko paase jullit war na laaj loolu boppam bi mu amee fanweeri at war na taxaw càmbar bu doon jaaykatu bitig la bu jaayee weer ba weer bi dee wala ñaari weer ñetti weer foog mu tëj bitig bi génne xaalis bi wàcce bagage yi xool lan la dépassé woon ak lan moo fi des waxuma la nag dund doomu aadama bi ma fi amee ñeen fukki at ak léegi waaw man sama ñeen fukki at yi ci lan laa ko jeexal sama journée tey bi bi ma xëyee suba bi ma yeewoo sama tànk yi wàcc kaw lal ba tey maa ngi di tëddaat waaw man sama journée tey ci lan laa ko passé ab jullit war na def ay taxawaay sama semaine bii ci lan la jeex wallahi ku mu doon ci ñun bu doon xaalis la ngay ñëw di jël di ñëw di jël bu yàggee nga taxaw xool lan moo fi des ku mu doon ci ñun nag laa wax bu doon xaalis la rek tey journée bi nga xëy teggi teggi teggi teggi dépassé balaa ngay tëdd di nga xool waaw man sama calfe bi am na lu ma fi defoon tey jël naa ci nangam waaw ñaataa fi des ñaata laa fi dencoon ñaata laa ci jël rawatina nag sa dund ngay dem rek looloo tax dee di ñu bett looloo tax dee di ñu bett parce que du ñu xool suñu bopp dañuy dem rek moo tax bu dee ñëwee dal rek nga gis ñëpp sëngëm lu tax parce que daf ñuy bett parce que adduna rek lañ topp di daw rek koo gis rek mu ngi ci ginnaaw adduna kenn du xalaat boromam kenn du xalaat li ma def kenn du xalaat li ma wax nan lañ yàlla soppi ixwaan yi waqafaatun yuhaasibuha fi dunya ay taxaw yoo xam da nga koy taxaw seetlu càmbar ko sa bopp ci bépp jëf boo jëf lii ma def lu tax ma def ko lii ma wax lu tax ma wax ko xoolal tey ku mu nekk ci ñun lu la neex nga def la neex nga wax amul ci ñun kuy contrôler naa def rek wala naa wax dëkk bi yépp wax la da ngay gis sax ay émission yu ñu ubbi wax sa xalaat dagan na sama yoon nekku ci daganul sama yoon nekku ci naa wax li ma neex li ma yëg xataa ci diine ji sax yenn saa yi nga dégg kuy laaj mu ne non selon que man ni ma ko gisee man anta man anta selon que man ni ma ko déggee yow yaay kan ba nga naan nii laa déggee wala nii laay gisee jullit amul gis-gis amul dégg-dégg yàlla rek ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ida qaala allah wa rasul fa bil ayni wa ras ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم warul julit bu góor warul julit bu jigéen yàllaa ko yonent wax mu naan waaye man nag waaye amul ci lislaam yàlla wax na jëfe yonent wax na jëfe islaam dafa am organisation aw tëralin la nekkul yow ngay xool li la neex bu doon kenn ku nekk yaay xool li la neex dëkk bi tas xoolal ñi takk tey juróomi jabar xoolal ñi yor ay conteneuru jabar xoolal ñi naan sàngara xoolal ñi col col gu bon xoolal ñi jaay dorog kenn ku nekk koo wax lu muy wax di nga gis ñoo xam ne sax ci diine xoolal tey pecc mi ñu dugal ci diine sabar yeeg pecc mi ak bopp yu jaxasoo yi ak sagar yu tilim yi ñuy sol dugal ko ci diine ji xoolal xoolal ay awraat ay wird ay azkar xoolal ay ibadaat ay jaamu yàlla ay julli yoo xam ne yëpp dañ ko indi dugal ci diine lu tax kenn ku nekk bu indee li la neex nii la li moom a neex nii laay doxalee nii laa ko gisee moo tax diine ji tey nekk cëpp xoo kenn xamul lu ñuy def te dara du ci diine diine mooy lu yàlla wax diine mooy lu yonent wax diine mooy ijmaul umma borom xam-xam yi lu ñu wax ijma ñett yi mooy diine leneen lu jël doomu aadama jël diine yow yaa ko tuddee diine te bala ngay xam ne du diine nga dugg biir suuf kon dafa yellu ci ñun balaa ñuy dugg suuf ñu càmbar suñu bopp ba man lii ma nekk di ko dund tey kenn ku nekk ci ñun bu doon xalaat di càmbar boppam kon yu bëri doo ci dugg da ngay gis koo xam ne day gàddu si yaadaam di julli si fekk melokaan bu mu mel yàlla bëgg ko tubéy ji sax tubéy ji rek ni mu ko solo rek yàlla bëgg ko yére bi mu sol yàlla bëgg ko lii mu teg ci kaw bopp bi yàlla bëgg ko te mu ngi ci julli mi ngi ci néegi yàlla di dégg ñu ne lii yàlla bëgg ko benn misaal bu ndaw ñaata ci ñun fii rek julli si jumaa ñoo takk ay lam te ay góor lañ te julli du takk góor du takk lam du takk chaîne ñaata ñaata ci ñun ñoo julli si jumaa seen tube yi mi ngi ci seen ginnaaw gi ñu takk dañ ko wàcce ba ci suuf ba tube yi bu ñuy jiital seen ñaata ci ñun lu tax ngay julli si kan moo la sant julli ki la sant julli daf laa sant nga am noo soloo daf laa sant nga am noo waxee moo tax mu ne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid kenn ku nekk ci ñun sax bul yaakaar ne loo neex nga wax de yàlla dafa la booleeg ñoo xam ne ñoo lay contrôler loo wax ñu bind ko te ñoom ñaar duñ la fenal parce que yàlla moo leen tagg ne kiraaman kaatibiin yaalamuun maa tafaluun ñoom ñaar yàlla moo leen tagg ne ñu baax lañ ñu sell lañ ñu yiw lañ kon duñ la sosal yàlla nee na nag li ñu lay garder mooy lépp loo wax ñu bind xoolal tey bu ñu doon contrôler loolu ndax dinañ ubbi boyal sunu làmmiñ rek topp ci deru jullit yi di lekk topp ci deru jullit yi di wax di yàq waxatuma la sax léegi diggante yéeféer ak jullit mais diggante jullit ak jullit nañ xoolaat suñu bopp mbokk yi yàlla na ci ñun ñu xool suñu bopp borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen préparé juróom balaa juróom ñëw fi ngeen wéree préparé leen dee ngi ñëw allahu akbar ñu ngi ni wér kën nga tey ñun mais am na ñoo xam ne tey mënuñu ñëw jumaa ndax ñëw yow yaa leen ëpp doole moo tax nga ñëw jumaa ndax da nga leen ëpp kattan ndax da nga leen ëpp mën-mën déedéet yàlla moo leen téye bloqué leen ba duñ ñëw jumaa yow yaa ngi nii ñëw santal yàlla bala yàlla mayee wér nga ñëw ñoom munuñu ñëw suñ leen bàyyi woon sax ne leen raam leen ngeen dem juma duñ ñëw juma benn waay ci benn hôpital dafa tëdd docteur yi ñëw wër ko ne ko tey fii nga tëdd nii su la yàlla doon jógloo lan nga gën a bëgg mu ne ma dem jàkk julli ji ma dem jàkk nga gis ñun ñu tey ñu ne këng duñ dem jàkk mu ne ma dem julli ji saa yu ma déggee hayya ala sola hayya ala falaa damay xalaata jóg waaye duma mën a jóg parce que yàlla moo ko téye bu yeboo ñu daw fa firru ila allah daw jëm ci yàlla balaa yàlla téye ñu xayaatik qabla mawtik préparel dund gi balaa dee ñëw dee ngi ni di ñëw fu ñu mën a nekk ayna ma takunu yaati bikum allahu jamia fu ñu mën a nekk yàlla neen dinaa leen indi kon bi ngay wir jaamul yàlla balaa dee ñëw fi nga wéree jaamul yàlla balaa ngay feebar fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay occupé fi nga nekk ndaw ndaw toll ci sa 30 ans 35 ans 40 ans nekk ndaw buñ la tagalee 100 kilos nga ni ko zaj yëkkatee ko sa benn loxo nga defe ne noonu ngay continuer ku ñibbi jumaa tey boo ñibbee boo demee ci sa papa laaj ko papa ndax nekkoon nga jeune yaay ndax nekkoon nga ndaw di la neen allahu akbar man bi ma ci tollee dana dana wax ne man mbërum làmb laa woon mosuma laal suuf gis nga tey mu ngi nii mënta wax buy wax doo dégg suy xool foog mu takk veer sooy wax ak moom foog nga yuuxu diggante saal bi ak buntu kër gi dina fi def 20 mètres dina fi def 20 minutes te yàgg soriwul kooku xale bu ndaw la woon fi nga nekk ndaw jaamul yàlla balaa màgget ñëw màgget a ngi nii ñëw sunu kanam léegi genn wàll gis ñu ñëpp sunu kawar yi commencé naa bijaaw commencé naa weex loolu mooy risaala bu yàlla bind doomu aadama mooy lettre dee sa kawar dafa ñuul sa bët yi gis ngay dégg nga jékki-jékki nopp yi di am problème nga jékki-jékki booy xool nga gis kuy gis ku mel ni kuy gis ñaari buum nga jékki-jékki tànk yi commencé bañ nga jékki-jékki kawar yi commencé weex yàlla bind na la lettre nee na la léegi nga dee omar ibnul xataab radiallahu anhu wa arda nee na waajal leen seen bopp balaa ñu leen a waajal li day waajal boppam lu tax sahabatul kiram kenn ku nekk si ñun bu doon dee nit ñi wër ko xam ne day dee du ragal am na xaw la xaaris dafay faatu doom yi wër ko ne ko papa da ngay dee mu ne waaw ñu jooy yuuxu mu ne leen bu leen jooy ñu ne ko lu tax mu ne leen arbaina sana ma azzana al muazzinu illa wa ana fi saffi l awal 40 ans noddukat bi su noddee maa ngi sàppe premier keroog ali bañ ko jamee lan la ali wax dafa buddi paaka bi buddi jaasi ji duñ ko jamee ne leen fustu wa rabbul kaaba texe naa fustu umar lan la wax biñ ko jamee dafa tëdd dafa ne dañ koy jëkkati jël njaganaay dugal ci suuf bopp bi mu woo abdallah ibn omar ne ko yaa abdallah irfa raasi min al wisaada ijalhu ala al ard la allahu an yanzura ila raasi wa hiya ala al ard wa yarhamani dañ leen delluwaat bu nu bëggee am li gaa yi njëkk yi amoon dañuy delluwaat wa in uttum utna yàlla nee bu ngeen delloo si rek ma dellu si wa in uttum utna benn kalima bu ngeen delloo rek ma dellu si fi mbir mi nekkoon jógu fa ñun ñun ñoo changé nu ayibu zamana wala ayibu fiina wa ma fi zamanina ayibun siwaana ñuy sikkal jamono naan jamono ji dafa yàqu jamono yàquwul ñun ñii ñu ñoo yàqu nu ayibu zamana wal ayibu fiina wa ma fi zamanina ayibun siwaana allahu akbar jant bi fi mu doon xëyee fenk foofu lay fenkee mbokk yi fi mu doon sowee foofu lay sowee mbokk yi ngelaw li ni mu doon ñëw noonu lay ñëwee suuf moo fi nekk ci suuf asamaan moo nekk moo nekk kaw géej gi moom moo fi nekk lan moo fi changé nu ayibu zamana wala ayibu fiina wa ma fi zamanina ayibun siwana allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahuma ya musabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مغير الاحوال غير الحالنا الى احسن الحال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى أنا- اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة